ñoo lay ziar bu baax a baax a baax di nuyu waa kees gépp di sant bu baax di la gërëm. Pape Mbaye ñu gis xaar bi yàgg lan ngay xaar fi mu tol nii. waaw man maa ngi xaar adversaire rek. maa ngi xaar adversaire rek parce que kees tey amaana amuma mbër mo fi di taxaw di bëre ku dul mo do Anta ya parce que dañ fay def ay preuve leer nañu ñoma don doon dox nag sama combat ma tribo tribo mo njëgoon soti sax man ma am ak Sidi affaire de problème caché mais lijjanti non ko ñu dem ba ci bir ñu jox ñu combat wi moy lool nonu xaw ma démé mu demee quoi. instant bii waxaatagul la combat pour l'instant bi. non waaw ñoy waxat ay yenen combat mais ay ñon chat wala wala wala wóor mbaru Dakar nañ ñuko indil ñu bëre parce que doon sonn suñu biir no combat bi problème kassa la won man ak Sidi après jubóo nan mom dañu ma ci mbar mi la yee mbar ma ini ki la ma doon bolal wol ko xol fum tege tribo waaw kay. Titbo nuyu nañ la. waaw fay nañ la. Titbo ñu gis seen combat bi am ay lëj-lëj lan moo ko waral. waaw combat bi biñ ko dalee dox daa yàgg. combat bi tabaski la waroon taxaw. après promoteur bi ni ma adversaire bi euh, dafa am staff bu ko yor te am na ko si nekku fi kooku la ñuy déglu Patasu ci la ñëw ni d'accord na ñu ne ko ñuy d'accord na ñu waxaale ba ba juboo mu jékki-jékki gars yi naan combat bi ci turbo yàqoo ci pambale yàqoo ñu toog deux mois dégguñu si jaadu. combat bi yàqoowul si man ma sa yàqoo taw si man. ci média laa toog combat du mu sa yàqoo ci man dañ dem ba ci biir ci combat dañ dem ba ci biir waxaale kese ba juboo ñu dem ba ci biir ñu gis yeneen changement te làmb am na loo xam si ñun ci làmb yaakaaruñ ci làmb kese mais yàgg nañ ci làmb am na kese yoo xam si ñu ko bëre ci làmb ñun dépassé nañ loolu noonu. mais tey man na damaa jàpp nit ki bu may wax ak moom si benn kese man kaddu boobu laa jàpp bu ma wax ak moom 100 francs 100 francs yooyu laa jàpp man a Sidi lu ñu waxante ñoom ñu ñaar la bu ñu waxee lay waxal lu ñu neex mais moom comme dafa fixé woon na Pambay si xaalis ba pare kon tey bu daa war a am jom pour bëre taxaw si xaalis boobu noonu pour mu bëre sa man la bu nekkoon man moom laa koy wax parce que ñu ñoo mën a war a neexal suñ toogee xam nga dama boo boo defoon ma trot trottoir laaj ñu bëri. dañ naan la combat bi combat la xam nga lu tax. parce que waaw dafa neex sax xam naa ni combat la dafa neex. mais laam boole wuñ. su ma demee ba war a bëree moom laam boole wuñ man ak moom. mais Pape Mbaye. non attends benn combat benn combat la bëree boo xam si. combat la boo xam si tey du ma koo bañal. mooy da non du ma ko wax. kii barki yaa rasulillahi kii deful lu ma def si laamu defu ko dëgg la moo ma mag de jiitu ma si laam mais lu ma def si laamu la defu ko kii tablet la. kii su ko pa eh. ah su ko ah. dafa leer dafa leer. déggoo lu ma la wax de. barki yaa Rasulullah bi tapet la ak i moromam yu bari yu ma njëkk si làmb mais tey damay teg loo xam ne ñoom amuñu fi di affronter gan gi maa ko raw lu ma def si làmb def ko si làmb tey boo gisee boo gisee tey boo gisee boo gisee média média bi nun may tiiwee ak nit ñi nun ma bëggee kon mu taxaw bëgg a taxaw ne dama raw mais maa ngi sant waa RTS bu baax jaajëf